la jox sa wàccuwaay. te di la jox sa wàccuwaay. jéggulu toog gi ñu toog ci kaw. nuyu nga xam ne noo toog ci kaw. waruñu. nee na nun waruñu. waaye nag da nga ni waaye yow da nga ni da sama sa nijaay Cheikh Abdoulaat. tudde naa doom sëñ Abdoulaat. tudde naa doom Cheikh Abdoulaat. nii nee na nii ma mel tey. ci wàllu àdduna. ci wàllu àdduna. ñu taxaw si biti. mu ne ma mu ne sa kër gële. sa kër gële. àggale ko. àggale ko. man de sama kër. man de sama kër. defar naa ko. defar naa ko. ba wut ay bunt. ba wut ay bunt. waaye yow yow de. kër gi nga war a tabax. kër gi nga war a tabax. ñëpp di la fa fekk. ñëpp di la fekk. daa war a rafet. daa war a rafet. taaru. te mu ni ma. bul topp ci ginnaaw kenn. bul topp ci ginnaaw kenn xajoo ci ginnaaw kenn. nee na fi sa cër lan. yow mii bi nga njëkkee dugg Dakar. nee na yow di sëñ Omar bi nga njëkkee dugg Dakar. sama ginnaaw nga daan fanaan. ci sama ginnaaw nga daan fanaan. ñu bokk benn lal. ñu bokk benn lal. boobu jamono doxewut nii. nee na boobu jamono fii de. keroog ma lay njëkk a xottil mbubb. nee na keroog ba ma lay njëkk a xottil mbubb. da nga ne ma sama nijaay. da nga ne ma sama mbubb laa bëgg. mbubb laa mu rafet mu rafet rafet. man la sooy dem. man la sooy dem. di nga ci am ay mbubb. di nga am ay mbubb. waaye da ngay ñaan. waaye da ñaan. sa maam. sa barke barkeb maam. xéewal gi dikk xéewal gi dikk. defe naa ba ngay ñëw. defe naa ba ngay ñëw. am nga ko. am nga ko de. màggal gii. nee na màggal gii. sama kër nga ko njëkk a sama kër nga ko njëkk a fondation. waxtaan ci ak man. waxtaan ci ak ne ma damaa bëgg a dem Mbour. ne ma damaa bëgg a dem Mbour. yëngal foofa. yëngal foofa. ànd a taalibe maam Cheikh Anta ak maam Cheikh Anta ak maam Cheikh ak Serigne Touba ànd ak ñoom liggéey liggéey mais la yoon woo de ma ne la yoon woo lay day soo ci jaaree boo ca jaaree te te jàddoo te jàddoo lépp dina la fa fekk lépp dina la fa fekk te yaakaar naa loolu ma la waxoon te loolu la ma la waxoon ñëw na tey tey ji ñëw na ku ne fekk na ko fi de soxna Adama nag nee na waajur wu jigéen sa waajur wu jigéen dañoo moom damaa bokk ak moom ndey bokk ak moom baay muy sama mag muy sama mag yiir ma yiir ma yilif ma yilif ma uuf ma uuf ma téye ma téye ma kon yow buñ la jàppul. sëñ Omar kon yow buñ la jàppul. xamuñu suñu bopp noonu xamuñu suñu bopp de. buñ la téyewul buñ la téyewul. xamuñu suñu wareef xamuñu suñu wareef. ndax sëñ Thierno. ndax sëñ Thierno. maa toog mu ne ma. maa toog mu ne ma. sëñ Aliou. sëñ Aliou. man de maa jël soxna Adama Diouf. man de maa jël soxna Adama Diouf. jox ko sëñ Hamidou Mbacke. jox ko sëñ Hamidou Mbacke. ndax jox gi ma ko jox. ndax ma ko jox. diggante bi ma war a sama diggante ak sëñ Modou Mamoun. sama diggante ak sëriñ Modou Mamoun. ba ma tuddee ko doom. kóllëre googu. laa jëlee soxna Adama. laa jëlee soxna jox ko sëñ Amidoune. ngir diggante ngir sama diggante ak moom. kóllëre gu ma fas doon kóllëre gu ma fas sama diggante ak moom. loolu moo tax. nee na loolu moo tax. yéen ñii ngeen meññ kër sëñ Touba foofe ngeen meññ kër sëñ Touba foofe. nee na loolu sëñ Thierno seen maam. moo ko def moo ko def. te boobu sëñ Modou Diouf mi ngi dund. boobu mi ngi dund. waaye sëñ Thierno. waaye sëñ Thierno. daa mën ci njaboot ak magam yëpp. daa mën ci njaboot ak magam yëpp. lu ko ci soob. lu ko ci neex. ko ci neex. mu def ko muy waajur sëñ Omar mi toog. muy waajur sëñ Omar mi toog. nee na kon sëñ bi. man xam naa sa baatin. man xam naa sa baatin de. am na fu jaar. am na fu ñu jaar. ci saa ne. ci saa su ne. soo ma woowee wax ma dara. saa soo ma woowee wax ma dara. xam man na man mii dama am fur la. dama naan da ngay dama naan la da ngay jënd. dogu ko. dogu ko. su amee. su amee ma jox la. ma jox la. nga dogu naa ko ci barke maam Cheikh Anta. loola am. loola am. la yaa ko man la yaa ko dogoon teel. noonu laay doxee ak moom mii. noonu laay doxee ak moom mii. ma seere ko mbooloo nee na ma seere ko mbooloo mi. du gone de. du nee na moom mii du gone de. ndax man de. ndax man de. Ah, doonatuma gone kenn de. kenn de. ndax ndax sama waajur. sëñ Aliou. ak sëñ Aliou. ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp. waaye bu loolu amee tam. waaye bu loolu tamit. jël naa sama waajur sama waajur. sama la waajur liggéeyal ma. sama waajur liggéeyal ma. sama waajuru jigéen. ci sama waajuru ma làq sama ngërëmal waajur ma làq sama ba ku ma bokkal lambaay rek. ba ku xam nga ko xam nga ko de. làq na ngërëmal sëñ Thierno. làq naa ngërëmal sëriñ Thierno Diouf lambaay. rangatuma benn sëriñ ci kaw suuf. yaa yaay du xalifa de. du président du ministre du borom alal du kenn ku ma te booba nee na booba demewut nii nag nee na bis bii ba mu ko koy wax bi mu demee këram nee na fekk na fa sëñ Omar mii su juumut nee na dafa yëkkati xéwal yu bari jox ko ko daan ne ko nag dinaa si jàpp dinaa ci jëf dinaa ci teew ndax nee na mu ne ko yow kat sama jarban nga ndax nee na mii bi muy gën a nekk tout tànk nee na da ko daan taxaw ci lu bari. nee moo tax xolam bu yaatu bii nit ñi di wax. ak li muy jëf ci biir kër sëñ Aliou. doon fa sagub ñëpp kër gépp nee na mii kat sagub kër sëñ Aliou gëpp la. ndax kat buñ koy woo moom mii. nee na sëñ Aliou lañ koy wax. nee na ci lay yëgee boppam ci lay doog am kon sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax. ndax fii nga teew. nee na bis bi sa bis la. nee na lépp luñ fi defal yow koy defal. yàlla na la taxaw. te fayal la boppam. li ngay liggéeyal sëriñ Aliou. ci njaboot gi. yëg nañ lépp xam na lépp yàlla na la sunu borom taxaw nee na sëñ Omar sëñ bi mi ngi lay santal boppam bu baax nee na bi daaw yaa àndoon ak sëñ bi bi muy woote sax teeg seegul xam na ne bis bi annulé nañ ko nee na waaye teewut kat da nga ñëw beeg si daaw nee na kon mi ngi lay sant bu baax di la gërëm te di la ñaanal ci sa barke bu waajuru tedd wa lépp loo xam ne bëgg nga ko yàlla na ko saabaram dogal ci barkeb Serigne Touba Khadim Rasoul kon nee sëriñ Serigne bi nag ñu ngi koy yóbbu.